ñu tënk li nga xamante ni moo ñu fi dajale tey indi fi muy këyit bi ay boroom xam-xam dajaloo lu mat fukki weer ak juróom-ñett ngir waxtaan ci boole ci ñépp ñi nga xamante ni soxal na leen waaye boole ci ñi ñu seqal àdduna jëm ci wàllu dem ak dikk diggante suñu réew ak yeneen réew yu nekk Europe wala nekk yeneen gox ci àdduna bi loolu nag li doon sabab bi mooy wàllu génn ci réew mi dem ci yeneen réew soxal ñenn ci suñu ay ndaw dafa doon lu ñu seetlu ni am na ay jamono day gën a bari waaye laata at yu ñuy nekk suñu réew naka jekk réew la moo xamante ni dañuy faral di tukki réewu tukkikat la Sénégal réewu tukkikat la waaye boo demee ci yeneen àdduna boo demee ci yeneen réew ci àdduna bi am nay réewu àdduna yu bari yoo xam ni seen màndarga ay réewu tukkikat lañ te suñu réew dafa bokk ci réew moo xamante ni yenn gox yii ci biir réew mi bëgguma tudd benn gox waaye am nay gox yoo xam ni boo fa demee ci réew mi di gis ni ñu bari ñu fa bàyyeekoo aadawoo nañ walla cosaanoo nañ di génn di dem bitim réew tekkiwul ni fi ñu bàyyeekoo dañ fa amul lu ñu def tekkiwul ni fi ñu bàyyeekoo tumu ranke rek léeg-léeg mooy tax nit jóge fa ndax nit dina bàyyi lu mu daan liggéey wala am ay tool wala am métier wala am liggéey boo xamante ni ñu ngi ciy suturlu bàyyi ko dem bitim réew li ma jublu ci wax bi mooy leeral ni problème mu tukki te bañ koo jaarale ci yoon problème bu complexe la am na xañ na ay ndaw yoo xamante ni li leen di tax a jóg mooy dañuy bëgg a dem feneen ngir liggéey donte suñu réew bi président de la république Macky Sall ñëwee ba tey am na jéego yu rëy rëy rëy ak ay résultats yu wóor wóor wóor yoo xam ni nemmiku nañ ko ci wàllu xëyu ndaw ñi nemmiku ko ci wàllu utal financement ñi ko aajowoo ngir ñu mën liggéey waaye teewul ba tey liggéey bi saa su nekk am na ay jéego yuñ ci war a dox ngir mottali ko ba tax na am na ay xale yoo xamante ni xaj na bëgg yaakaar ni bu ñu demee Europe wala dem ci yeneen réew yi dina leen tax a am dara dina leen tax a jóg waaye ci wetu ñooñu am na ñoo xam ne loolu taxu leen a jóg li leen tax a jóg mooy bëgg-bëggu dem beneen réew ngir nekk fa moo xam dañ fa am mag moo xam dañ fa am rakk moo xam dañ fa am soxna moo xam dañ fa am borom kër moo xam sax ndax dañ fa am xarit yaakaar ni seen dundin noonu lay gën a ñoŋee te noonu lay gën a neexee bu ñu génnee ci réew mi loolu nag bi ñu gisee ni at yii ñu jàll daanaka ñaar at yi ñu jàll gis nañ ni mbir mi dafa gën am dayoo ñu gis ni euh, dañuy dugg ñenn ñi dañuy dugg ci gaal yi ñenn ñi di jaar boori Mali jaar Niger yéeg ba ci kaw ci dëkki Maghreb yi jaar Méditerranée pour mën a dugg Europe am ay jéego yu bari yu ci état bi dox 2005 ak léegi. bi ñu nekkee deux mille deux mille bi ñu tàmbalee am na benn loi bu état bi defoon muy loi contre la traite des personnes ndaxte dañu seetlu ni xale yi bëgg a def loolu léeg-léeg dafa am ay mag wala ay seeni moroom yoo xam ne dañ leen di nax gëmloo leen loo xamante ni amul jël seen xaalis dugal leen ci gaal goo xamante ni ku ci duggu sa bakken mën na si rot te képp kuy jug ngir tukki da nga ñaan yàlla yegg ak jàmm fi nga jëm. donc état bi tàmbali ngir atta tàmbali par attaquer ñuy def loolu contre xale yi mu nekk benn loi bu ñuy daanee daan yu metti ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, organiser voyage yooyu di nax xale yi ak di jël seen ay koppar 2005 déjà mu am benn loi bu ci créé àdduna di dox ba 2017 mu am beneen jumtukaay. bu état bi jël teg ko muy division nationale de lutte contre la traite des personnes ñu mettre ko en service en janvier 2018 am tamit à côté de ça benn cellule bu nekk ministère de la justice bu tudd cellule nationale de lutte contre la traite des personnes waaye loolu doyul ñu dem ba 2020 ñu gis ni président de la république son excellence Macky Sall am seetlu ak jàngat bu mu def ci mbir mi mu ni léegi dafay indi benn banqaas bu bees ci ministère de l'intérieur bu ñu tuddee comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine ministère yu bëri dugal ci seen loxo ba sama naataango yi toog ak man ci table bi ku ci nekk sa xam-xam dina ñëw sa xalaat dina ñëw sa ay ndaw dina ñëw ci banqaas boobu ngir ñu bokk liggéey bi waaye liggéey doo ko mën a def mu sotti ni nga ko bëggee mukk lu dul ni xalaat nga ci bu baax a baax saytu ko càmbar ko bokk ko ak ay borom xam-xam ngir xool li am ci jéye lan moo ko waral boo attaqué wul li waral jéye ji boo demul ci li waral jéye ji nga saafara ko booy saafara manifestation yi wala conséquences yi maanaam li muy jur bu dee loolu rek ngay saafara te saafara lu koy indi bis bu nekk da ngay xel di saafara di saafara te mbir mi du fi jóg mukk moo tax ñu jël fukki ak juróom-ñett waxtaan ak ñi mës tukki waxtaan ak ñi nga xamante ni dañu dajaloo def mbootaay tukkikat waxtaan ak ay expert waxtaan ak ay partenaires techniques et financiers waxtaan ak ay imam waxtaan ak ay chef de quartier gis ni ci réew mi am na juróom benn gox yoo xamante ni fa la nit ñi gën di bàyyeekoo di tukki te li leen fay jëlee du saa su nekk benn mbir mi lay doon ñii xañ na dañu yaakaar ni bu ñu demee Europe dinañ am xëy mais ñii dañu jàpp ni même bu ñu amee xëy fii ci senegal ñoom dañu bëgg tukki ngir yaakaar nañ ni li lay liy neexal seen dund lii tax sax ñu jox leen benn cër bi mooy dañuy doon ay tukkikat loolu yépp nag boo ko càmbaree xool ko seet ko tënk xaatim ko tënk ko ci benn document wan ko ñi seen xam-xam màcc ci loolu dafay jaadu ci nouveau gouvernement bi ñu ñëw nag tey Euh, bu ñu amee li ñuy wax euh, validation politique bi muy nangu ni yoon wii lañu war a jaar ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ba pare tënk ko ci ay at tënk lu ci nekk li ñu war a def mu am ay banqaas yu nekk ci biir comité interministériel boo xamee de lutte contre l'immigration clandestine ku ci nekk sasoo sasoo ay jéego yoo war a def ngir saafara mbir mi loolu mooy li nga xamante ni moom lañ doon tey wesaare di ko euh, weccoo ak yéen taskatu xibaar yi ngir mën ñu ko jot askan wi